di ñëw ci kaaw ñi fi doon def point de presse tey dans la journée di wax ne dañoo bàyyi coalition Mamadou Diaw dem jàppale le candidat du parti au pouvoir ñun ba ñuy liggéey président Mambo Diaw dafa jël doomu Fatick muy Massène seen Gueye mu jox ko ne ko yaay sama mandataire national ba si léegi rek Daouda mii nga xam ne moom mu jiitu ci parole bi le coordonnateur des jeunes wan na leen clé bi nga xam ne tey jii moom la la DGE remettre candidat bu nekk ak sa clé bi ñu la boo jëlee tey jii parti au pouvoir ka leen di représenté kandi clé boo demee xool nga ñëw ci candidat El Hadj Mamadou jaawo boo xoolee clé bi ko xam ne tey jii moom léppam fii la war a nekk clé bi numéro baa ngi nii 157 la donc keneen ku dem bëgg jaay sa bopp wala bëgg woon nguur gi ne am na lu ma tëyee ci président Mame Boye Diaw dañuy wax askan bi ne ña doon wax tey tëyewuñ dara loo xam ne tey jii mën na yàqal Mame Boye Diaw lu toll ni bën bëdu puso parce que Mame Boye Diaw am na carrière am na jaar-jaar ñun ñi mu àndal dañu nekk ay acteur politique te ba ñuy jug di ànd ak moom xamoon neen ñan ne leen jàkkaar lool ba ñuy jug di ànd ak Mame Boye Diaw dañoo xamoon bu baax ñan la Mame Boye Diao di jàkkaarloo régime bi fi nekk seeni pratique ñëpp xam neen ko buñ la mënul jënd ci alal la koppar wala teraanga àdduna jaar tuumal la fii dañ fay am ay jurisprudence te tamit régime boobu may wax ni tey jii ni bu ñu xooloon seen digganteeg Ousmane Sonko ci kaaw Adji Sarr xool seen digganteeg Djibril Ngom mi sàccoon parrainage dem déposé ko am na pratique yoo xam ne régime bi tey dafa waroon rompre ak mo et c'est malheureux dem ba en 2023

buñ demee ba ay nit yu bokk ci mamboy ñu di dem di leen jéem a récupérer ñenn ñu leen jox ay teranga pour xëcc leen boole leen ci kon xanaa li nekk ci parti au pouvoir dafa bëreetul wala parti au pouvoir moom la mu yor ci ay moyens ressources humaines daf koo doyeetul bu ñu liggéeyoon nag jaar fi ñu war a jaar jox li ñu war a jox askan bi jàppale ndaw ñi jàppale jigéen ñi je pense que duñ toll situation bi ñu toll nii di rappelé ne Mame Boye muy nekk candidat woowu ci ma Samba woowu ci ma ne ma kaay jàppale ma waxatuma la na ku bokk APR ñun ñi di wax APR leen bokkoon Mame Boye Diao ba muy déclaré candidature amul kenn si ñun koo xam ne dalaa woo téléphone ne la ñëwal nga jàppale ma dafa demee loyauté am ak ngorom engagement am man mii di wax ba mu ko njëkkee ne ko président da ngay dem candidat te boole woo ma ci mu Omar man képp koo xam ne da nga nekk biir APR sama loyauté ak sama engagement mayu may dem naan damay rocc ay nitu APR sénégalais yi 18 millions leen te 18 millions yi lu ma 200 mille na sénégalais yoo xam ne tey ji dañoo wën nguuru APR ginnaaw pourquoi pas ki ñuy wax tey ji Adama Adus Fall nekkoon suñu délégué régional bu mu jàpp ne dañ koo jiitaloon rek dañ koo jiitaloon parce que peut-être que mag la dañ koo jiitaloon parce que démb mu ngi woon APR fa valeur amu fa place yàgg faa dund ay jafe-jafe boo demee YouTube wax ba amul seede neexul dama nga tapé turu Adama Adus Fall boo tapé turam démission ci topp Adama Adus Fall dafa miin démission Adama Adus Fall bu jógee tey mu ne man jaaw 2024 nga loo miin ndaxte boo demee YouTube tapé Adama Adus donc kooku bu jógee tey mën daf ñoo bàyyi dafa mel ni dara xewul dara xewul parce que ñu bañ koy jiital Dakar magam agam du ci popularité du ci légitimité à la base parce que kenn mësa gis fu Adama Adis Fall dajalee ñeenti siège rassemblé fa ay nit coalition bi ñu bokk moom jiital ko muy dalee région jiitaloon ko parce que may rappelé depuis le 26 octobre coalition bi jël na dogal notification baa ngi nii yónnee ko DGE ne Adama Adis Fall ñun teggi neen ko suñu délégué régional ko da koo def xëy na nag boo waree dem jaay sa bopp feneen boo waree dem seeti ji waa nguur gi nga xam ne tey ji téyetuñ dara parce que damay faral di wax benn bokk yaakaar c'est un géant aux pieds d'argile fragile actuellement ils sont en quête di bëgg ay nit di wër ay nit tey ji lii moo leen jaaxal ndaw ñuy topp Mame Boye Diao li leen jaaxal mooy chaque jour ñuy toog di xool suñuy statut suñuy suñuy suñuy déclaration di gis nit ñi di affluer vers la candidature de Mame Boye Diao ay jeunes ay femmes Mame Boye Diao bu dul woon bu dul woon candidature bi am na benn njëriñ wala candidature am na ku mu tiital kon je pense du ñëw suñu biir di jëm a rocc ma sàmba wala ma demba ñi fi nekk candidat bëri na kenn demul ci biir waa kër Dëcce wala waa kër Massamba wala ma demba dem di fa jëm a rocc ay nit waaye nag c'est normal qu'on s'attaque à Mame parce que comme ni ko Daouda waxee c'est la candidature qui dérange c'est la candidature bi nga xam ne jeunesse yi dañ ko porté c'est la bi nga xam ne que dañ ko porté te du dara nag joxul kenn dara digul bopp te fi nga ko bëgg a yóbbu incha allah dañ ko fay yóbbu loolu du Adama Adis Fall du ma Samba wala ma Demba am na ñu dëkk Kolda ñu ne de Mame Boye Diao da leen nommé woon général da yàlla def na ne note ba leen nommé secrétaire général sax mosut a génn bañ koy publier peut-être que nag tey jii pour ñu dem jaay seen bopp wane ne dañoo am valeur foog ñu ne Mame defoon na ma lii waaye ki ñàkk ngor mooy ki nga xam ne tey jii Mame moo la jox valeur ba Adama Abbas Fall di ko woo këram di jooy naan APR respecté wuñ ma nekk ci cinquième démission am xanaa bii bu mu démissionné Diao 2024 mooy sixième Adama Abbas moom waxu démission moom boo tapee YouTube li may wax rek da gis Adama Abbas gis démission gis trahison kon kooku waxam féete na boor keneen ci taxaw nga naan doomu Kolda nga Mame Boye nekk doomu Kolda et c'est la première fois doomu Kolda nekk candidat à a xalaat ne suñu doom ji tey ji bu laajtee réew a jàppale mu dem jëli Sénégal bu dee nag loolu noonu nga dëkk doomu Kolda Mame Boye Diao yëkkati la teg la fi mu la war a teg ngay syndiqué nekk dans le mouvement étudiant tekki woo dara politique kenn xamul ci amoo base amoo fenn fooy dajale ay nit Kolda yaa ngi nii toog ñi ciy jàppale Mame Boye nekk ay góor ak ay nekk ay homme de base te ñu ngi leen jox rendez-vous keroog bu Mame Boye xëyee ne day dem defi tournée Kolda boobaa neen xam na kan mooy borom Kolda parce que je pense que da ngaa bëgg ñu jox la koppar jox la alal jox la ay teraanga mais ñun loolu yëngaluñu